ñu ngi dolli di sant su borom subhaanahu wa moom mi ñu melal takkanal ñu ginnaaw bu ñu amalee te kenn fekku ci julli ci rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam mi ndawam mu yónni ci ñun te kenn mënta am ngërëmul yàlla wala nga defal ko lum nangu te jaarewoo ko ci sunnaam sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaan suñu borom boobu yàlla bu mu dañ di dotti leeram ak tawféexam ci mawlaana cheikh ahmad bamba xaadim rasul mi nga xamante ni moo ñëwoon liggéey bu rasulillahi boobu demee ba rab mu ñëw bàyyi ko yeesalaat ko ba mu beesaat tàq ci xolu waaye di sant tey ñaanal Cheikh Ahmad Mbacke ma ul xayaat mi nga xamante ni moom bi Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasul demee bañ dugal ci lu bari lu ci bokk génne ci lu bari lu ci bokk moo ñëwaat takk ànd koog ay gor ni dina delloo lépp ci cosaan la te cosaan la mooy sunna rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaan jàmbaar yi nga xamante ne nag takk nañ seen ndigg ànd ak maawul xeet suñu borom mu laxal leen jàpp musal leen ci seytaane ak ndox ba dëgg gi nekk te jàpp ko te wér ci seen xol suñu boxam borom saxalal leen ko ba keroog ñu koy wuy moom rabbul izzati wal jabarut ndax du jaas ci kenn ginnaaw kàddu yooyu ñu am gan bu tedd te mag ndax nit bu ñàkkee xëy na jublu la nga ne daa am waaye bu demee ba am di dikk nga xam ni xëy na jàppam googu yàlla tax muy maître Alioune Badara Cissé ndax ñun suñu jataay jataayub suñu boroom subhaanahu wa kàddu yi ñu fi jékkati muy ak cant di kañ di gërëm ñu koy jël di ko jëme ci rabbul xisati wal waaye seede dafa am solo yéen ñëpp ku di taalibe ku tedd ki ay at rek xammee nga kanamam ci jataay bi am na si ses bopp duñ nekkee ci comité d'organisation bi sëñ mii seede la ci moo fa jiitu ba bi mu ñëwee amaguñ kenn ku ñëw moom mu agsi biñ ko dalalee moo woo sëñ bi ni ko ah maître Alioune Badara moom ñëw na moo fi jiitu it mu ne ah kon de xam naa moo may dalal cant googu moom moo génn moo recevoir sëñ bi moom moo ko ganal moom mooy gan waaye moo dalal sëñ bi keroog màggal ga ca tegu bu ñëw ba mu ñëwee toog ku dikk doo ko fekkee ñun mbokk xàmmeek ñun mbokk taalibe yi mel melow murit wu mat sëkk ci tooginam ak doxinam déglu waxtaan wi taataan ko bi muy tamit kàddu yam joxaleeg seen baay seen baay wax na ma ko muy koo xamante ni kon yor na ndax lu mën a ndax nit dina dem sax fu ñuy duyee waaye bu fa jógee du fa mën a jàpp dara ndax amul waajtaay ga waaye bi mu kàddu yi mu def suñ xam ni ku am waajtaay mën a duy la ndax léeg-léeg bu muñ solal nit dina tax ñu fàtte laneen la ëpp solo lu nekkoon ci moom lool nag wax dëgg yàlla moom dalu ko ci liñ xamanteeg moom doxal ko ci diir at ma ca toppit mu ñëwaat ci sëñ Saaliw Caam su mbokkum taalibe moomu doon jàmbaar wàccee liggéey taxaw bam ca taxaw recevoir ànd ak ñun naqar bi ak teew physiquement loola duñ ko fàtte mu daal ni lim doon suñ mbokk taalibe murit duy wax kese da jëf sëriñ saalih caam ci ahmadu mbakke maaul xayaat nee na yàlla nañu yàlla taas ci barkeem amin kon nag cheikh saalih caam yàlla nañu yàlla taas ñu ci barkeem ubbite jumaa ja mu ñëw teew taxaw ci taxawaay bu rafet bu dikkati màggalu daaw ab bàyyi laxat la sol waaw mooy nit ñi koo xam ne boo ko jàkk rek xam ne murit la ñëw dox doxin taalibe moo si bi ko yàlla defalee tamit ndax sëñ bee ku ko jàpp ngir yàlla dina la jàpp-jàpp ci saayit ba nga xam ni boo doon xarit am nga xarit bu ko mat tamit moom it lu xew ci moom ànd nañu sëñ bi këram ci xew-xewu tiis waaye ñu cay sant yàlla di ko muñ bi ko yàlla defalee tamit ñu ko médiateur de la république sëñ bi yabal nañu fa ak mbokk taalibe yu bari keroog bañ fa teewee discours bi mu yëkkati di nga xam ni c'est discours plein de spiritualité boo xamante ni ñi doon déglu xam na discours nit ñi dañ koy entrecoupé ay tàccu waaye nit buy wax ak ruu ñi dinañ tal yeneen léeg-léeg discours boo xamante ni fu fa nekk rek jàngat nga ci sagesse muy xëkk na jàngat nga ci ñàkk solo àdduna jàngat nga ci valeur nit l'humanité jàngat nga ci ni war oyofale yëpp bu mën a def ay concession mën a li ñuy wax de vivre ensemble dëkk ci penc mi dëkkin bu yéwén muy discours boo xamante ni man jàppoon naa ne waroon nañ ko relayer mais nag dañ nekk ci réew moo xamante ni dëgg dañ koy natt ci nekk ku nekk fa ngay dégloo sa dëgg waaye lu baax mën naa génne ci ku ne keroog li génne ci gémmiñam wax dëgg yàlla ku déglu nga xam ne nag moom de xëy na doon na déglu faneen waaye lim doon taataan ci maa ul xayaat tamit feeñ na ci waxinam bu ndax discours bi dañuy wax dee muy bis biir ruux di tàqalikoo jëmmam te du jaar ci benn jàmm feeñ na ci te li ma doon wax ni loolu ku ko teewal lépp woyof ci yow ndax loo mën a am bu dikkee loolu moom randu lu dul yàlla moo tax bi ko dugalee ci te indee ko anam goo xamante ni ku ko dégg yëg ni kii lu gëm lay wax ndax kuy wax loo gëmul ña koy dégg duñ ko gëm loolu euh, mu doon seede bu rafet boo xamante ni noppal na ki koy seede ndax ñun moom wax dëgg yàlla yàlla dimbalee nañu amatuñ ku ñuy jay ndax dañoo amoon ku ñuy ragal ci yow ndax séentuwuñ dërëm ci kenn séentuwuñ loolu yàlla defal nañu ko moo tax lu ñuy wax yàlla rek lañ koy seedeel bu nekkul woon ci woon it duñ wax dañ naan cel bu ñëwee ñu introduire ko bu gàtt wax turam wax santam wax titre bi ñu topp bi bi biñ ko taxal jox ko mu joyal ay kàddoom ba lii c'est devoir moral ñu wax ko ñi koy gis mu fiy toog toogul rek en tant que pour am tur wala autorité ci dëkk bi waaye kóllëre gu ma sëkk la di taalibe murit di ko xamante ni ci wàll yu bari daa ko ak ñoom pas ñun pas-pas ci li li ñuy dox te loolu moom moo ñu ko wan loolu daal bëggoon nañ leen ko seedeel laata ñu koy jox kàddu gi diko santat buah bu baax nak ndax yang eh, tamit ñaanal yan bi ko yàlla eh, dénk muy médiateur de la république muy jëm ju wara te tëdda njaaxaanaay bo xamanteni ni fenn moy ku sa bët xonq rek ci mom nga wara dem mu wara jog nak baña tam xam lu kenn dox ci wax ci pour lepp na mënatu la parparloo mënatu la def xàjj ak seen nañ ko ndey ji réew la koo xamante ne yaay la yaay ji seex yoo xamante ni bët xonq daal nga jàpp ni néewal nañ la doole war ngaa mën a dem ci moom moom mu dox ci wax ci lu sax dalay xeexal waaye dina delloo xel yépp ba ku nekk am loolu nag kuñ ko dénk dénk nañ la sas bi moo tax ah, te fi muy ñëw tamit xam naa ne lu fi waaye taataan suñu borom dina ko jàppandal te nuru na ma koy taataan kon yàlla na ko suñu borom duyal ay ndabam te bu ko nuyee yàlla ndab ya fekk set na te bënu ba li mu soog a duy mu mën koo jariñoo yóbbu ko te dara bañ see tuur ñu ngi jégg lu baax kon ñu ngi jox parole bi maître Alain Badara Cissé le médiateur de la République du Sénégal. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Cheikh Amadou maa ngi sàkku ndigal ci yow. kàddu yi nga xam ni fas naa ko yéene yëkkati ay ñaan nga ñu fi wax doon lu dëggu ci ñun ndax ñu naw ci ñoom nekk ak mbolo ma ñu doon nañu mel ci yow te bu ñu sañoon mel noonu ci yow waaye ñuy gis sari ci ñoom Babacar ci ñoom Abou Thiam ci ñoom Aliou Niang bu joxoñ gannaaw bu ñu Pape Fall préfet Pape Fall jëlee ci sa loxo suñu borom yoon yi ñu ko def ñëw fekk lu fii ci bés bi tànk yooyu bañ ñu ngi ñëw ci bés bu mag ci yoonu murit ci bés bu mag ci yow kay dajale taalibe yi mel man xam ni boo yéexoon ci ñoom amaana ñu tàbbi ci leneen lu ñëw joxañ leen yoonu Serigne Touba dans l'orthodoxie la plus incontestable di màggal ni Serigne Touba bëggee ñu di ko ko màggale di ko santale suñu borom ca la mu ba muy dem wootewul wallu bi mu ñëwee ànd ak mayam fas yéene ku ci nekk ku nekk nga ñëw taataan si tàbbi ci suñu borom yow nga jóg nekk soldaaru Serigne dajale ñoo xam ni waxoon nañ ko léegi rek ñu tàbbi ci leneen nga ñëw dugal leen ci géej goo xam ni bu ci te dootoo fendi ba faaw te xeeñ Serigne Touba ba faaw incha allah rabbi Pape Fall bi ma jël teg ma sa loxo aw ma payam démb lu ñëw kër ga ma ko Pape jarul soññ ndax foofu moom man maa fas ne at mu nekk allah màggal ci ngoon amee ma woo abu mu wax ma waxtu yi ma am difficulté ci circulation bi pour teew fii ca jamono ja nga xam ne moom la ma ni ci lay tàmbali ñu ngi ciy jégalu bu baax ah ñun nag nekkuñu lu dul sa ay taalibe ñu jàppee yàlla buñ la ci rusloo na ñu jàppe yàlla bu ñu ci kersal ndax gis naa ni jàpp nga nu te jàppantuwuloo doxañ nga ñu sa ay mbooloo boole nga ñu ci sa bopp kon yow sa jaan wàcc na ñu ñoo ci des li sawaay Babacar wax léegi rek mbir yi moom dañuy jaawale ay mbir waaye ku mënti jaawale itam yow jaawale wulo kon la nga yaakaar ci ñun yàlla na nekk ci ñun la nga bëgg ci ñun yàlla na nekk ci ñun la nga am yéene ci ñun yàlla na nekk ci ñun yéene bi weesuwul bés boobu nga xam ne ñëw nañu féete ak yow nga jël nu taf ñu ci sa wet bi weesuwul ñu ñëw fekk si la ci sa ci ndakaaru nga dugal ñu ci sa wet boole ñoog sa njaboot ay fan tuuti nga def ay teraanga yónni ñu indi ci kër gi weesuwul moo am tiis sama goro wàññeeku nga ñëw ànd ak njaboot gi guddi ñëw def sa njaal weesuwul ñu doxaat tuuti mu am lu ma dab ci biir affaire yor réew mi nga yónni xale yi ñu ñëw taxaw fo taxawaay bu mat sëkk weesuwul nga am yéene ñëwal fa sa bopp jàng fa ay kaamil ziar def fa ay ñaan yoo xamante ni mooy gën a dëgëral suñu taxawaay yéene boobu weesuwul ñu toqal sama nopp ñi ñaari rak yi ñu genn façon de yene ñew ndar bok ak ñu bis bi kon amul benn natable que serigne cheikh ahmadou mawal haya aya boole ñu ci bop kon ñun alune badara sise yal nañu fexé ba bañ ko ruslo ci lolu ba kenn du ni cham ndax bu weesoo jëmmam kat yeen ñi ñu jàkkaar lool ak ñu ñu fété càmmoñ yeen itam lañu war fasiyene and ak yeen ci and bu gëna rafet boo xamante ni moom dane ah Alioune kat jàppoon naa ko waaye gis naa ni ànd na ak sama njaboot ànd bu rafet ñu ngi ñaan suñu borom ci bés bii nga xam ne ñëw naa fi ci yow ñëwati fi ci yow fas yéene itam nag di fi gën a ñëw nee nga ma léegi te maa loxo naa la man la sëñ bi maa ngi koy tuub dootuma ko defati ndax jàpp naa ni waru ko ci yow waru nekk itam ay àq nii rek dafa war sax dàkk ndax di ñëw di jàkkaarloo ak yow doy na defaru àddina ak alaxira wax nga ko fi wax nga firi am solo def différence entre gis ak xool xool nag dafa jege xool waaye ba tey bokkul wàll woowu nag xam naa du sama wàll du ma ci sore lool Moustapha Dia laa kanam ni Pape Maysa Thiaw moo ci topp moom waa Kajoor la Oumar Ndiaye jóge Ndar ak sëñ Mamadou Diop moom saa su nekk ñooy nekk mu ngi jóge Mbuur ñëpp ñu ngi lay jox suñu loxo ak suñu siyaara di sàkku sa ñaan saa su nekk loo ñu tere ñu def loo ñu tere ñu bàyyi loo ñu sant ñu def incha allahu rabbi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf